ay ca murit ay ca murit ay ca murit wajalila biha bi jaayi xayri ma nabaat asalaamualeykum wa rahmatulahi taala ca kanam saa su ne rek muy wane pas-pas ak yéene ji nga xamante ne bi am na ko ci luy suq li lépp lu jëm ci dëkk bu sell bi di Touba ba tax na mi ngi leen di yëgal ne jot nañu ndigal ci xalif général ku lu murid mun Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak weer jëm ci jëmbët ay garab ci biir dëkk bu sell bii di muy projet bu am solo boo xamante ne bi ñi ngi ko dippee naatal Touba sëriñ bi jox na képp koo ko man nga ànd ko ñoom ci lépp loo ci mën ci sa kattan sa alal ak sa jëf ak ànd ak ñoom ci liggéey bi ca tàmbali ba ba ca mujj ga ndax liggéey la bu rëy boo xam ne kat ni ñu ko bëggee bu ñu amee incha allah képp ku duggati ci duggati ci dëkk bi rek da nga xam ne sopp ko na. tàmbali liggéey bi nag mbokk yi dimanche ji ñu dëkkmal lay doon di juróom-ñetti fan ci weeru septembre ci diggante ñaari tali yi nga xamante ne bi ñoo bàyyikoo ci rond-point bi nekk booy dugg Mbàkke ba agsi ci garage Dakar bu njëkk ba ba tax na nag mbokk yi Touba ca kanam mi ngi ci woo mbooleem jullit yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba ak li ko wër di ci tàllal loxo mbooleem kilifa diine yi ngànk yoonu murid waaye mbooleem autorité étatique yi waaye mbooleem kuréel yi nga xamante ne bi ñooy yëngu ci wàllu développement moo xam muy association yi GIE yi ONG yi rawatina ñi nga xamante ne bii ñoo di daayira yi muy projet naatal Touba. mu def ci yitte ju mat sëkk waaye loolu moom amul lenn lu jëm lu jëm ci dëkk bi doo ko gën a yitteel ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci ñuy jëmale dëkk bu sell bii di Touba ca kanam.